suñu nit ñi xarit ñëw garab Thank you. ASC Farba ñu nuyu waa ASC bi yëpp di nuyu ñi fi teew mais alias Birame da jëm ci combat samedi le 20 bi ngay mujjee ci euh, lamb ji da nga ñàkkoon sa combat tey ñu jox la grand combat li ma lay njëkk laaj mooy mbër mu daanu ba pare am grand combat loolu lu ko def. waaw di wax onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba eh, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moom mi jox ba dëgg ba tax mu daal di signé Bamba ne wa waaw comme dañu jógee si combat ñaax ko ñëw ñu jox ñu grand combat loolu xëy na suñu borom ko tudd rek mais man suma rêve sax nekkul woon pour teel a pour teel a bëre grand combat. yee combat bi ñu koy dox Mor Mbaye xam na pare wu ma woon pour bëre ko parce que mbër bu ndaw laa pour man defaguma loo xam ne waroon naa mën a bëre grand combat mais après le gars yi ñëw ne ma jëlal ma doog a jël bëre mais loolu dara xëy na daa am lu mu gis ba tëgguñu rek te yàlla bu yaakaaram tas daal. xale bi ngay xam nga ko. waaw rek parce que sore wuñ. loo ma a wax moom. waaw champion mbër la def na jéego moo tax ma nangoo bëreeg moom wax dëgg fa ndax jàmbaar la quoi. mu mel ni xale la mais xale boo am ambition la parce que dégg naa ca ay waxam maanaam ci yow loo ko andil am na lu ko supérieur maanaam ci li nga yor ci wàllum bëre xeex ak lu mu mën a doon. non loolu moom mi ko wax sax gëmu ko ndax seetaan na ma mbapat ñun sorewuñ ma yëmbal laa dëkk far Farba moom mu dëkk Malika li muy wax noonu sax gëmu ko. lu tax nga ne gëmu ko. xam na ne maa ko dàq bu dee bëre maa ko bu dee xeex maa ko bu dee fit maa ko xamante nañ. da ngeen a mos a laalante si mbapat waaw non ñëw na samay tournoi fii yu ma tëggoon fii ñëw na fi waaw mais dafa teel a daanu nag quoi mais champion la daal waaw. mais ni nga wax ne su ma la déggee dafa mel ni yow confiance bi dafa bëri ci yow ba parce que boo nee yaa dàq bëre yaa doole bokku ngeen ça veut dire que loolu mooy que ni moom da nga jàpp ne la fin du am dara. non pas confiance bu bëri sax mais dama xam ne man ak moom bokkuñu rek xam nga làmb moom làmb rek lay wuyoo chaque jour làmb. bokku lekk na sa waaw lekk na ko non wax naa la ko si biir yi wax dafa wane boppam dafa ndaw la mais ndaw lu wane boppam sax mais nag bu xoolee ñi mu doon bëreel ak man tuuti nañ bu baax te samedi di nga xam dara di nga xam ne man ak moom sax lu laam su ma la déggee daal maanaam yow amuloo looy moytu ci Bulldozer non wax dëgg faala amuma lu ma bu dee bëre maa ko bu dee xeex fi la yow kon la laa war a moytu si moom ko ngeen bokk banlieue bi parce que Farba ak euh, Malika defe naa la même ah, sore amu fii tey lan moo war a doon taxawaayu Alliance Birame ci bés boobu ak lan moo war a doon taxawaayu Bulldozer ak seen ay supporters waaw daa am loo xam ne signature bi passé xëy na ba ñuy def présentation bi dama ñëw indi mbooloo signature bi am loo xam ne dafa xew ñu bëri ñu ngi wax loolu noonu mooy bu may ñëw Amadia ak Mor Mbaye dañ ma woo ne ma wax nañ sa adversaire bi kenn indi supporter boo yëpp dañoo bëggoon a ñëw jël ay super mooy leen noono Amadia woo ma wax ma wax ju doy waar ne ma deux personnes parce que CNG wax ma ma ñëw ba foofu fekk leen ñoom ñi ndey asiko fees fa dell di yoole mais xëy na ba ñu yoole xamuñu woon la ñuy yoolee man ñett nit laa àndaloon mais man lijjantiwu ma àdduna mbooloo man lijjantiwu ma loolu aw lu may ragal suma àdduna mais loolu ma koy naqarlu tamit ah parce que promoteur moom fa ñëw indi kaar après ay affaire ruube mais yooyu garaawul man mën naa koo gérer dañ laa dóor wala dañoo dóor ko àndal wala non dóoruñu ma duñ ay mbooloom ñuy yëngal foofu noonu xam nga ko xamul dana alliance biram mbooloom wala dara ni fekk ñoom ñoo wax loolu mais bu dee wàllu cadre dóor wala yooyu yëpp noo garaaw ma mun naa kon côté mbooloo da ngaa bëgg a wax ne samedi booy bi du la ci yóbbul dara ah yow gis seetaan cinq bolog la ma joxoon laa jël si moom waaw kon samedi booy bi da nga ko bëgg a noyé ci ci public samedi dinaa duy stade bi yëmbal laa dëkk yëmbal di yëmbal bawal ñoo ma sekk bu bawal bool yi bi jege nañu dañuy dox ñëw waa yëmbal bu fii dem xam na ne ku ne la kuy doomu farba ku ne yaa ngi pare samedi li ma daan indi bii mooy raw di si woo tamit autorité yi si mu nekk ku si mel ne suñ papa Thierno Diop ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax ñu waaw mu ñëw tamit parce que il est temps jot na parce que mbir muy bëre grand combat ba heure bii kenn gisoo gu mag kenn metti na lool combat bi boo buggee dégg-dëgg wax dëgg fa yàlla tar na loolu waaw ma gudul ay samay grand daal ku si mel na ñoo ngi ko dañoon bàyyi daal maa leen gis bu baax di woo Thierno Diop bu baax tamit di woo Gana Mbaye maire Bambey sànq rek mu may woo si suba moom moom mention spéciale daal moom xaarul sax ma koy woo gan yow bool bool nga waaw man bool bool laa foo dëkk si bool Bambey laa dëkk Batal Njoojoom waaw ngoy alu si la foofu man maay birom sama borom xeej bi man maa moom mbaar ya waaw yee waaw <laughs> léegi su ma ñëwee ci euh, premier grand combat si sa carrière nga di ko bëree loolu xam nga lu muy tekki ci ci mbër muy door a bëri grand combat waaw waaw waaw waaw taw féex la rek taw féex la rek pour man tekki bi mooy xama lan ñëw wone li nga war a wone li nga war a wone mooy lan mooy ñëw duy estaat parce que man damay contre ñoo xam ne naan ay mbëri ndaw yi ku si bëre dem mais mbëri ndaw yi ku si bëre am nga droit dem yow mi war a bëre grand combat ba mënut a indi lu la duye lu sa combat mais mbër bu ndaw bu ñibbee ñu naan ay mbëri ndaw yi toog man loolu dama koy naqarlu chaque jour mbër buñ fay xaalis da war a mobiliser te samedi bu ñëwee di nga xam ne fii yëmbal non bëgg nañ combat bu baax ñaata combat nga am ak arène waaw bëri naa ñaata victoire six victoire deux défaites deux défaites waaw. waaw adversaire bi tam huit combats. non adversaire bi sax sept combats la maa ngi koy dégg mu naan huit sept combats maa ngi koy dégg bu baax. yow si la ci leer yow ah lu la leer ci loolu. non damaa xam rek ñun xam nañ palmarès am. waaw kan ak kan ko daan kon. non jarul may wax ko daan parce que loolu intéressé wu man moom xam naa ne bee bis sama premier combat laa bëre daanu. bee sama premier combat laa bëre daanu ak sama dernier combat. ah Xaadim Seck analyste kat bu mag bi dana benn defet la am. waaw non man xaw ma ay defetam moom man moom xam naa ne daal Bac Seras daan na ko. Bac waaw Bac Seras Junior. xam naa ko man deux defet laa am loolu moom méttiwul. ah ma bëreel ak ñi mu bëreel. ñoo bëreel. maa daan Mbaydin. ak Orka maa daan Wës Jàmbaar. loolu rek doy maa daan Boy Dieye. maa daan doomu Bayla. war a bëreel 21. maa daan Boy Golf maa daan Boy Caa waaw. kon ba ba samedi alias. waaw ba samedi di wax tamit di woo ñëpp. ku si nekk Tapha Tine dina ñëw. Tapha Tine waaw xëy na dina ñëw bu fi nekkee. si kaw mu nekk bi mais di sant tamit ah. ku si mel ne baay Tapha di ko encouragé bu baax a baax a baax di ko xamal làmb noonu la waaw na jàppaat bu baax a baax a baax a baax di félicité ñàkk jariñu suñu grand ak candee la waaw di waaj tamit màggal daaru musi bi le 21 di siyaare bu baax Serigne Maxtaan Mbàkke Noreyni waaw ñàkk maa ngi koy nuyu bu baax waaw Père comme ni ma ko waxee rek comme ku mel ne Njaay ay ñoon booy yëmbal ay ñoon booy ñaa ñoon rom xamaluma la wax nii ay ñoon siiru dun xaaf ay lam kii booy lamin suñ këg si xam nga di ko bu baax di siyaar tamit ku si mel ne booy jaañ ay vieux jola amen ñay xam nga ñoon baaba jaxal di siyaare tamit waaw di siyaare ñëpp tamit ñëpp ñëpp ñëpp rek may ñu si kër waaw di wax tamit avant tout di nuyu sama mag bu baax si man muy soose maane gis naa sax waaye bu baax a baax xam naa yéeneem si man ak sama mag bi nga xam ne ñëwul muy Zal Bamba yi waaw di wax tamit Codé Fall aw ma fayam bàyyi Zal suma mag ak suñu waa kër ak sama mafia jolof bi ah. waa jolof bi yëpp. waa léegi xamu luñ soxla. waa jolof waa mbaar mi. waa mbaar mi tamit maa ngi leen siyaare bu baax. waa Miami. waa jolof laa dëkk. xamal wala waa Kekli waa Bayal ba. farba bépp koñ bu fi nekk. waa Testo ak booy ñàkk jariñu waa Franc. waa Franc bu ñàkk jariñu. waa CFA bu ñàkk jariñu maa ngi leen di siyaare bu baax. we di woo tamit suñu benn grand ci am teranga Touba wax am na xam nga chaque jour dañuy bëre dañuy dem si moom mais day tar day tëj porte yëpp ñun ay doomu yëmbal lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee ni muy jàppalee yeneen bëri nañu ko jàppalee ñun amuñu lu dul yëmbal bu ñu demee ay Balla Gaye di ko tudd ay ñeneen ak ñeneen di ko tudd loolu safewul ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk yëmbal ñun la war a jàppale mais heure bu ñu demee si moom mu tëj buntu yi na pare nañ pour dem si moom pour mu jàppale ñu parce que lii suñ premier grand combat la drapeau yëmbal la ñuy léegi leer dañu bëgg nga sikkar ñu tëj waaw di si kat di wax onze billah bismillah daal jëm jëfe sëñ Tuubaa Tuuba Bamba Tuuba Tuuba am nga diine Tuuba maam Bamba Tuuba Tuuba am nga diine am nga diine Tuuba Bamba Tuuba Tuuba am nga diine Tuuba Bamba Tuuba noon yaaka ma sanko nan du ndar ngay jaare Tuuba mu jaare ndar muy waaja mel ni daaro mu daadi koy jalax mu way ndakaaro Tuuba mam Bamba Tuuba Touba am na dinamoo ala bee ñaari ko dey Ndakaaru ba dégg Bamba mbër ma wax nga waaru Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na wolololo. Bamba jar na wolololo. Bamba jar na welelele. Bamba jar na lelelele. Bamba jar na dange dange. Bamba jar na dange dange. Dange dange dange dange. Bamba jarna dange dange Bamba jarna dange dange Bamba jarna dange dange